أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki jullit yi ñi ne ci biir réew mi ak ñi nekk fépp ci àdduna bi te di safoo seen chaîne Dakar Midi maa ngi leen di nuyu di delluwaat di leen ziyaara ci weeru koor wu sell wii nga xamante ni su doom sagoo bépp jullit mooy at mi yépp di wéy di nekk weer wu tedd wii ndax ngëneel yi mu làmboo di leen nuyu di leen sant aussi ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ci weeru koor gi yépp nga xamante ne imaam Saliwu Sall ren ji ci mbaaxu suñ boroom moom lañu joxoon ginnaaw bi ma ubbee mu développé émission yépp ci weer bi daanaka alhamdulillahi rabbil alamin laal na sujet yépp di ko ko di ko ko gërëmee di ko sant ci taxawaayam ci disponibilité ak ci yéene bu tedd bu sell bu mu am ci wesaare xam-xamam daal ko partagé ak ñi ko doom seetaan ci Shukran mbokk yi Shukran nag deuxième saison bi mi ngi touché à sa fin ndax bi moo nar a nekk dernier numéro ci weeru koor gi di ñaan yàlla rekk lépp loo xamante ne waxtaane nañ ko ci weer wi yal na yàlla def ko mu nekk barke ci ñun def ko barke ci suñu ay njaboot ci barke gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon nag contexte weeru koor bu jafe aussi ndax gis nañu coono yi nga xamante ne moom la population sénégalaise yi nekkee ci biir réew mi foo ci jaar mbokk yi yaa ngi gis ne nit ñi ngëm ak bëgg ak fonk suñ borom rek la ñuy demee mais coono yu tar mi ngi nekk seen kaw ñuy muñ di ko muñ suñ borom moom mi wax ne mi ngi ànd ak aji muñ yi inna allaha ma sabirin moom azza wa jal yann soppi donc xeetu dund bi nga xamante ni mi ngi dal ci sunu kaw te covid 19 bi gën ko taral mbokk yi weer bi aussi nit ñi profité nañu jàng alquranu karim gën a sellal dund yi waaye tamit di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu bari daanaka ñun fexe nañu ba matal alhamdulillahi rabbil alamin lu toll ci million ak lu teg ci salatu ala nabi te fàttewuñu kenn ba ñu koy def suñ borom mi wax ci alquranu karim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما moom moo convoqué jox instruction doomu Adama pour mu julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nag jiitu ko ci ànd ak i malaykaam boroom xam-xam yu màgg yi ne nañu malayka yooyu suñu boroom àndal suñu doom xam seeni dayo mu ne su leen yàlla yebaloon ci kaw suuf kenn ku ne mu laaj ko mu indi benn peppu suuf suuf si nekk ci univers bi yëpp dana jeex te genn wàll malayka yi duñu am ndax sakkan bu ñu sakkan moo tax mbokk yi kenn du suñu borom moom mi nga xamante ne moo wax ci alquranu karim wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin moo wàccee yonent bi ci kaw suuf ngir mu doon yërmande moo wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa wàccewuñu alquranu karim pour que tu sois malheureux moom sunu borom moo waxaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yenn saay mu ne ko xaamiim di ko nabb nabbe ndax cofeel gi mu am ci moom yenn saay mu ne ko kaaf xaa yaa ayn moom sallallahu alayhi wa sallam yëg ci boppam cofeel gu tedd gu suñu borom am ci moom cofeel googu nag mbokk yi sunu borom ginnaaw bi mu ko jaglelee yonent bi en exclusivité daa nëbb bépp jaam bu mu sàkk façon gi cofeel googu ndax xam na ne am na jaam yoo xamante ne am nañu ay prédisposition ci bëgg façon bi yàlla wane noonu nga war a bëggee yonent bi waaye yàlla daa fiir moom ci bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci biir xuntu xiira bi mu bëggee jox yonent bi liy déclenché alquranu karim waxuma jàngal bi ndax jàngal bi moo jiitu ñu déclenché alquranu karim si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag alquranu karim moo ko finde soo demee surat rahman suñ boroom dafay wax arrahman mu mu sol le manteau de la miséricorde wax allama alquran il a enseigné le coran mbokk yi Dieu parle aux doués de raison kan la jàngal alquranu karim mi ngi ko jàngal gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam afin de faire de lui le témoin privilégié jamono bi muy sàkkee doomu aadama xalaxal insaan moom sallallahu alayhi wa yàlla defaat na lu lu lu barkeel lu neex si xol mooy ci biir surat rahman boobu aussi soo demee dafay wax marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxu la yabxiyaan am na ñaari ndox ndox bu saf xorom ak ndox bu lewet li nekk si am bu embouchure la amee li nekk seen duggante wax nañu dafa benn ligne invisible te boromi xam-xam yu mag yi ñi am cofeel ci gën gi mindeef am yëg-yëg bokk ci ñi wax les doués de raison ñoom la yàlla di waxal encore ci alquranu karim ànd nañu d'accord ne barrière invisible boobu leeru sallallahu alayhi wa sallam abal xaasim rahimahullahu rahmatan waasia wa salawatullahi alayhi wa sallam mbokk yi yal na yàlla yokk suñu cofeel ci gën ji mbindéef sallallahu alayhi wa sallam moom bàyyu Fatima az-Zahra bi waykat bu mag bi ci Égypte soxna Umu Kalsum waxoon ne Fatima alma sa baay bu tedd bi ma kañ ko ndax jaar ci faatima ab bàyyam sallallahu alayhi wa ci dégg soo ko defee dafay barkeel sa yëf ndax ni yonent bi meloon ci Fatima Azahra ak ni bàyyam bu tedd bi yonent bi sallallahu alayhi wa meloon ca moom moom sallallahu alayhi wa sallam suñ borom def ci ñi bëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla roof ci ñoom élégance yàlla roof ci ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam éloquence yàlla roof ci ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam personnalité yàlla roof ci ñi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari lool ay soppe yoo xamante ne suñu xasee ba bëgg duñu dañ mukk ca bëgg boobu waaye jeexul yàlla roof ca ñoom ñu bëri it ay noon foofu nag dinaa taxaw ci point boobu mbokk yi ngir kenn ku nekk ñii di ma seetaan jàkkaarloo ak seen conscience ndax suñu réew jamono ji noonante bi dafa bëri lool lool lool te lépp nekk une animosité gratuite te mbokk yi xool asamaan jarul buuxante te amul kenn ci kaw suuf ku mun a empêcher destin wu koo xamante ne noonu la ko yàlla tracé les destin am amul kenn ku ko mun a arrêté ku dul suñ borom moom mi bëgg mu doxee noonu moo tax mbokk yi faaw ñu delluwaat ci di jéggale di jëllale ak ci di cultiver li nga xamante ne moom lañuy wax cofeel ndax lu cofeel amul du lalu mukk ci luy wëy di teddal doomu aadama mbokk yi beneen point bi mooy lépp loo wax ne mbër nga ci sunu boroom tëggal la ci làmb soo waxee ne tàllal naa sama loxo ne man de aw ma bàkkaar du ma mooy mukk sunu boroom du yàgg mukk yàlla tëggal la ci làmb soo waxee ne lii ma bëgg def gisuma kenn ku mun a tax ba duma ca yegg yàlla tëggal la ca làmb doolul am ndam mukk soo jógee ne faaw diw mii dana ko yàq ba dootul jar dara yàlla tëggal la ci làmb yoo xam ne doo ci am ndam mukk ci àdduna mooy indi nit di nga koy gis fu mu toll kanamam di nes nesi ndax mi ngi transcender luy xew ci moom di am mbégte saa su ne ndax ni muy transcender mbir yi mooy indi nit nga xool foo ko fekk kanam gi di froissé foo ko fekk mi ngi gagné foo ko fekk mi ngi am airu ku mer li ko def mbokk yi mooy bañ a nangu ndogalu sunu borom. surtout jamono ji ñu nekk nga xamante ni suñu liggéey yépp mooy fexe ba wax yàlla ñun de jéggalante nañu sunu biir lenn rek lañ ciy sàkku yàlla nga defal ñu jàmm ci sunu réew. lenn rek lañ ciy sàkku yàlla nga indi naataange suñu biir kër yi mais ñi àndul ci seeni i biir kër ànduñu si biir seeni i koñ ànduñu si biir seeni gox ànduñu si biir seen i dëkk naka la yàlla di sottee teraangaam foofu mënta ne moo tax kenn ku ne ci ñun wala xoolaat boppam ci taxawaayam am na solo lii Jésus waxoon mat Madeleine ci Constantinople daf ko waxoon ne que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre Dieu parle aux doués de raison amul kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yorelul suñu borom bàkkaar ndax suñu borom màgg na benn màggaay boo xamante ne am na dayoo bu kawe boo xamante ne lenn dong moo ko ñor mooy jëmmi yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam te mbokk yi balay muy gën leen ñu àgg bis penc ba yonent bi daagu moom sallallahu alayhi wa sallam ca taar ga ca rafet ga ca bëgg doomu aadama yi yàlla sàkk ak ni mu ko diglee ñu bëgg leen ci sopp leen ak ci taxawu leen moom gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam bis boobu nag yàlla da koy ràng ay garat yu ëppaat grade ya mu ko ràngoon te nit ñi di ko di ko ko woyee grade ya mu koy ràng achafaatul uzma bokk na ci la grande intercession dana ko ràng grade boobu dana ko wax yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma dégg la dana ko wax ràmmul ma nangul la te bis boobu nag mbokk yi muy sëriñ di taalibe képp kuy doomu adama yàlla daf lay privé kàddu ndax benn kàddu rek moo nar a dox bis boobu wax naa ko benn bis benn nit ma ne ko kàddu yonent bi rek moo nar a dox mu ne ma ah sama sëriñ dana wax ma ne ko du mun a wax bis boobu ndax tagg ga mu nekke woon ci kaw suuf di ko taggee yonent bi bis bu jàkkaarloowee ak moom seddaayu xoolam ak raf bi muy def ak mbégte mi mu am da koy privé kàddu ba du am sago ci kii mu jàkkaar lool di gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg mucc ku ko sopp mucc ku ko tagg mucc moo tax yenn saay ñu ne nit de kii daal tiit naa ci moom ca ëllëgëm doo yàlla doo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amuloo décision bi tax nga war a tiit ca kooku ndax la war a xewu ca moom mu ngi bàyyikoo ci suñu borom te suñ borom yërmande ji daf ko jël roof ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bis ci mbokk yi ñi nga xamante ne ñoom la ñu ñu soppey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña mag ak ña ca gën a féeti suuf kenn du ëppale cër bis boobu ci gën gi mindeef ndax noonu na yonent bi taxawee dafa lewet mbokk yi daa mën a séddale te séddaleem kenn du ñàkk kenn du xool lañu sedd keneen déedéet ndax yonent bi moo juste mbokk yi moo baax moo tëdd teddaage googu nag la nar wesaare ci julli yépp wesaare ko ci àdduna wesaare ko ci doomu aadama yi lii moo tax suñ borom wàcce ko ci kaw suuf lii moo tax suñ borom di ko ràng grade yu tedd yi bis bi nga xamante ne moom lañu ñu nar a jàkkaarloo ak moom ci bis penc mbokk yi santaat nañu leen gërëmaat nañu leen ci ànd bi ñu ànd ak yéen di leen ñaanal yàlla mu muccal leen yàlla defal leen jàmm defal ñu ko di ñaan suñu borom képp ku am aajo ak nu mun a toll yal na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla saafara ko fàttewuñu kenn mbokk yi ñu ngi ñaan suñu yaay yi suñu mag yu jigéen suñu mag yu suñu rakk yu jigéen yi ñi ngi ñaan bépp jigéen yàlla dolli di la suturaal di la teral di la yëkkati ndax jamono ji ñu toll jamono jigéen ñi la ñu xam ko ak ñu ñàkk ko xam seeni yërmande seeni taxawaay ci biir société bi dana déclencher lu bees tàq ci àdduna bi yan yàlla may nag ba ñépp xamee ko noonu ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di leen sant di leen gërëm di leen wax ba dëwan jàmm incha allahu taala ci yeneeni numéro dans la saison 3 de Shukran alhamdulillahi rabbil alamin alhaqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Eid Mubarak